mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu soppay Seydina Mohamed yëpp maa ngi nuyu waa fondation Kër Rasoul nuyu kilifa kër gi di sëñ ma Masek Thiam bu baax ma moomule Alhaji Masek Thiam mu tedd moomule soppay Seydina Mohamed boobule te mu wóor ma ni ko bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam la. la béykat arab waxoon ne yow yàlla ni ma mel ci yow yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam ni ma mel ci yow du ma ko seedaloo kenn ku dul yàlla yàlla xam na ni bëgg naa la wallahu yaalamu annani waaw yàlla xam na ni bëgg naa la waaw bëgg naa la mara Cheikhul Xadim cofeel ga mu amoon ci yonent bi dafa Sëriñ Bamba dafa wax ni dem na ba cofeel gi di ngacc sama yaram xeex xeex jismi xeex jismi mu ni bëgg gi ma bëgg Sidina Muhammad mi ngi ngacc sama yaram bi waaw Saadul Abibu Muhammad Fadal Cheikh Ahmad Cheikh Saad bu ni ko innal fuaada surifa waaw bi xubbi xayril Mustafa Cheikh Cheikh Saad bu ni bëgg gi ma bëgg Sidina Muhammad sam innal fuaada muy këmboot këmboot mooy li ëmb xol li ko ëmb nee na xar na ma ngay toj ngir bëgg rasulullahi samam Cheikh Sidil Hadji Malick jàmbaar ji bàyyi Sëriñ Babacar Si Maodo ni sama dund gi naka lay teeyee man Alaaji Malick naka lay dundee dund gu neex fii dew ma jàkkaarloog borom bariéeru or ba waaw fa kayfa yatibul umru in dumtu hahuna wa hana allazi law laahu daat sabilu mu ni fa kay fa yatibul umru sama dund gi naka lay teeyee in dumtu xëxu naa ndéeg maa ngi sax fii ci Sénégal man Xaaji Malik te waxër naa nekk fële ëllëg ka nga xam ne law laahu bu nekkuloon ak moom daa sànku asabilu yoon wi mooy Seydina Muhammad waa ji nga xam ni bu nekkuloon ak moom yoon wi sànku mu ni sama dund gi naka lay teeyee te deew ma jàkkaarloog moom war a Maodo doxee fi 1888 Sénégal ba Makka Sénégal ba Médine pour gis Rasulullah yi ci moom lay am dafa xale ñoo taalif téere bu ñoo ibnu muhayyab am nañu wax ne ñu nga bàyyi ko Algérie dañuy way yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy xalila yauja bil muasabi wanzila waaw xasida bu rëy boobu di way yonent bi bu kii wayee benn satru mooy benn rangé keneen way benn satru mooy beneen rangé ñu koy way noonu di ko way di ta di dox di way yonent bi di dox di way yonent bi bay bëgg dugg Médine Seydina Mohamed feeñu waa lenn ci nitu yàlla Médinatul Munawwara yi ak gardien bi ni am na ñaari xale yu dugg Médine suñu accès da danaa jóg ndax li ñu may wax ci yonent bi li ñu may wax man rasulullah tagg gi ñu may tagg bis bu ñu duggee Medina dinaa jóg ñu waxtaan boobu jamono bi melagul nii ñu kaar leen buntu Medina ñu leen du ngeen dugg leen xale yi ne ñooñu yéen xamu leen li xew ñun ñu doxee Algérie ba fii ay weer ñuy dox pour gis rasulullah ñu ñëw ba bay bëgg dugg ngeen ñu dugg pour ziar ko lu ko waral ñu ne ko du ngeen dugg xale yi ne bu ngeen ñu teree rek ñu jaar beneen buntu waaye daañu dugg. borom yi xam-xam yi daal di waxtaan ne ñaari xale yi kat bu ñu leen bàyyee mën nañoo nax dugg biir mi te waa ji waxam du deñ du waxee bànneexu bakkanam wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxin waxee lu mu wax yàlla ne yàlla ne na ko loo wax maa ko wax loo waxul waxuma ko waa ji waxam du teggiku xam nga lu xew ah? xam ngeen lu xew xale yii nañu sàkkal leen pexe dañ leen mujj rey keroog ba ñu leen tëralee di leen rendi xale yi dal di xoolante daal di kontaan ndax rey gi leen rey ngir sopp rasulullah ñu yëkkati seeni ñaari bët xool yàlla xalaat rasulullah daal di muuñ ñoom ñaar ne yaa rabbana bi ardihi wa samaa'i amitna ala tasdiqihi bi istifaa'i sallallahu alayhi wa sallam